maa leen di nuyu di leen siyaar di nuyu waa Sénégal yëpp. père ñu jub si ci combat Ama Baldé ak Modou ñu jàpp ñaari signature contrat mu yàqu coow li bari lool. waaw waaw day combat bi dayu moo yegg foofu rek mais je pense que aussi euh, war nañu am na yoo xam war nañ ko dépasser. ay sànni ay xeer ay yooyu yooyu war nañ ko dépasé quoi vraiment làmbu war na weesu foofu parce que lii am nii sax. am naa du du lu Ama sant du lu bëgg. parce que Ama aussi moom moo bëgg combat waa Pikine ñoom ñoo war a defar ñoo war a taaral bi sax. ñoo war a defar ba nga xam ni combat bi lu war a mën a am. soit que keroog bu doon jàkkaarloo bi ñoom war nañu mën a defar ba nga xam ni. Modou ak Ama dinañ mën a toog. waxtaan amul benn problème waxtaan la rek quoi. mais euh, lii euh, rafetlu ma ko quoi vraiment. rafetlu ma li am keroog. waaw ñu gis ne combat Modou Lo Ama Baldé dafa am tension bu bare bare bare bari ba man maa ngi dégg sama benn père Cheikh Ndiaye. dina combat boobu bu naree am est arène national moom Bambey la koy fekk. <laughs> waaw combat bi dayoo comme li ma la wax rek dayoo bi moo toll foofu. xam nga Ama champion la Modou champion la Modou yor roi des arènes euh, Ama Ama soxla ko waa Pikine soxla ko topp ci am. soxla roi des arènes moo tax combat bi aussi tension bi euh, demee noonu. arène nationale la pour mu am fi soit que billet yi dana cher mu mën fee am mais billet bu cherul aussi yaakaaruma ne dina dina dina fi mën a am te fii arène bi fu mu nekk bien vrai que baax na mais fi mu nekk baaxul environnement bi mu nekk nii. boo dafa ñàkk sécurité. amul amul benn sécurité. amul sécurité de. Modou nee nañ dafa ñëw ba ci rond point bi nit ñi di ko sànni xeer mu dëpp n'est-ce pas. waaw loolu image yi ñëpp Sénégal yëpp gis nañ ko man mi maa ngi woon ci oto bi dañ ñëw ba fële à presque à cinquante mètres booy génn di ñu sànni ay xeer man mi dama wàcc oto bi sax su ma waneelu ginnaaw ma xam naa xeer dina daal sama kaw damaa fente fente ba ba macha allah xeer laalu ma mais vraiment loolu dañ koy ñaalu quoi. vraiment oto Modou waaw am na am na oto yu bari yu ñu toj. oto yi bari toj na vraiment man bëgguma li am ci gis nga nawetaan li fi am eh, état bi aj na nawetaan nawetaan amatul loolu bu amee ci làmb rek aussi noon lee demee ñu aj làmb ji ba loolu pertement la te euh, làmb euh, acteur de développement la boo xam ni euh, ci Sénégal facteur de développement la mais waruñu ko yàq waruñu ko yàq xale yi war nañu góorgóorlu lii la ñu am ci làmb mbëri aussi ñuy sensibiliser di wax ak seen supporter rek seen fan club yëpp euh, bu ñu ñëw stade làmb affaire noobu la ñëw sañ sañ sañ see solo ba jekk toog seetaan boo daanee nga jubilé boo daanu nga xam ni eh, daan nga daan xam ni yàllaa la defal loolu mooy loolu quoi vraiment daal gars yi war nañ war nañu sensibiliser xale yi ba euh, acte de violence yi da jóge fi ci làmb loolu moom maa ngi koy sàkku quoi vraiment ci écurie yëpp ñuy sensibiliser xale yi mais est-ce que Modou tamit xam na ki muy bëreel di Ama Baldé ndax ndaw la te combat bi jaral na ko mu dem France entraîné ji ñibbi si bi nga gisee état de forme Ama Baldé ci image lan la nga jàngat ci loolu. Euh, loolu moom xam xam na Ama bu baax parce que boo xoolee bëri nañu boppam Ama bëri na fi bëriwaat fii euh, xamante nañ quoi kenn ku ne xam nga sa morom. fii moom boo ne boo fi nekkee di seetaan sa adversaire di nga xam ku ci nekk sa adversaire li mu mën mu mënewul ko xam Modou xam na Ama bu baax xam na li koy xaar Ama aussi xam na Modou bu baa xam ne li koy xaar. waaw amaa ah, gis naa ko euh, ak form mi ngi mi ngi ci forme macha allah <laughs> mi ngi ci forme maa koy ñaanal talak fekke rek mu am ba jour làmb ji <laughs> bi signature bi yàqoo dama jël père Abdou Bakhoum mm-hmm. mu ne ma Modou Lo man ak ñun ak ñoom face à face doy na. combat rek. <laughs> non face à face dootul amati. face à face dina am mu tàppet la doy na. <laughs> non Abdou Bakhoum moom du ma ay waxam sax bëgguma de ci kii quoi <laughs> sama grand la. mais daa mel nii daa mel ni da leen a xaw a sonal boobu moom. non moo moom day yëngal waaye day rek Modou di ko sànni ay xeer. man man bëgguma sax di ko tontu. bëgguma sax di ko tontu sama grand la aussi euh, vraiment naa ko bàyyi daal ni ñu di jugé mais man moom en personne bëgguma di ko tontu. mais xam naa ne daal Ama lii booy di def sant ko ken Ama ku yaru la jox na ñëpp cër. Modou mi nga xam moom lay bëree sax Ama jox na ko cëru magam mais magam mag Modou magam la magee na ko deux ans. Eh, magam la quoi mais jox na ko cër ba mu mot sëkk. mais ñoom baaxum war na ñu di sensibiliser xale yi wax ak ñoom. ba mm. yi coow yi bañ am. Mm-hmm. am na loo xam ne Modou ñun duñ ko def waa parcelle. Mm-hmm. ñun duñu yàq lam kenn mësul gis ñun waa Parcelles ñoo yàq làmb ji. Mhm. di sànni ay xeer yooyu non loolu amul si ñun. Mhm. macha allah mais yéen ngi xool sécurité bi ak violence bi wax ak supporters yi supporteru Modou yi ndax Modou bari na ay fans club ndax yéen a ngi sensibiliser noonu ci violence bi. loolu moom naka jëkk kuy seetaan làmb rek xam ne Parcelles du ñu yàq làmb ñun mësuñu jóg di wax ak gone yi xale yi. Mhm. ci mbirum mooy li ma la sànq. am crime. ñu tëj ñu tëj nawetaan yi. Mm-hmm. làmb boo ko amee aussi noonu la ñuy tëjee làmb ji. Mm-hmm. loolu nag mën nañ war nañ fa bañ a yegg. Mm-hmm. li may wax rek nañ sensibiliser xale yi. bañ a def benn violence loolu suñu njëriñ la. bu làmb amatul doo demati stade naan yaa ngi seetaan yaa ngi seetaan bër. bu làmb amatul ñiy jaay café ak jaay gerte ak ñooñu ñëpp dañuy dem chômage. kon nag nañ ci jàpp bu baax. di wax xale yi ñu bañ a def benn violence. jërëjëf waaw jërëjëf père ñoo ngi lay gërëm di la sant ci ak nungul bi ñu ko nungul. maa ngi lay kontaanee bu wér yow moom sama sama fils nga <laughs> di wax rek nga ma sa papa ak ak mère bi ah. <laughs> waaw yow depuis boobu tout tànk nga. dëgg la mais yow it sama sama xaar nga ma sa nekk moom macha allah. man maa la féetewoo <laughs> ndax ci yar bi lépp ndax ku gis ni ngay waxee rek. Eh. xam ne waxoo xol waxook dara bu la ñëpp toppee nag. ci Modou Lo Ama Baldé waa kër Modou Lo ni nga waxee. Hmm. waxee nga ci dal waxe nga ci respect doomu aadama mhm. te àdduna nag nii la rek père jërëjëf waa parcelle yëpp ci non violence mhm. waa parcelle yëpp yëpp maa ngi leen di ñaan kuy supporter Modou kuy soppee Modou euh, ñu ngi lay ñaan ci non violence